célèbre tiktokeur bi di Samba Ka moom nag ñu daal di ko woon tegoon loxo ci wàllum li nga xamante ne si nag moo di cambriolage ba tegoon xam ni moom Samba Ka waxoon na ko daal di tëdd moom moomee nag ginnaaw ba mu génnee prison ak léegi daanaka sax nag mu def benn weer wala sax nag mu daal di jege li nga xamante ne si moo di ñaari weer moom moomee nag daan nañ daal di dellu si waat ci sax nag ñu daal di ko woon teg loxo ci ay révélation yi nga xam ni daan na koy daal di daal di xam ne rek ne dañ ko tooñ rek mu doon fayu wante amutoon intention daal di cambriolé wala sax nag mu daal di jëli alalu jàmbur ki ñu ko sekkal xam na ko bu baax a baax te daf ko tooñ bëgg ko woon rek yóbbu si yoon ba taxoon rek moom moomee mu ne woon dafay daal di fajala boppam ba lii rek daal di ko ci daal di fekk wante nag moom nekkul ko nga xamante ne si nag dafay jël alalu jàmbur loole nag bokk na ci kàddu yi nga xamante si kooku Décembre Ka moo ko daal di xamle mu waroon a tëdd li nga xam ne nag moo di deux ans de prison. wante moom daal ne daal di xamle un an six mois rek la moom dafa daal di bokk rek ñi nga xamante ne si nag dañ leen a daal di gracier ci li nga xamante ne si nag moo ji ci eh, tabaski bi anam ga nga xam ne nekkee woon na ko ci prison bi mu mel ni sax xuusi ci bu baax wante daal ne daal di xamle prison bi métti woon na lool wante nag tax na mu gën a xam moom mooy kan ak fan la toll ci réew mi bokk na ci it arrestation tax na bu baax a baax mu xam moom mooy kan ndax nag biñ ko daal tegee loxo nag ñi nga xamante si moo di ñoom ñëpp ku nekk rek di jóg di àdd ci loole loole nag tax na moom mu xam ne jamono ji waxatuta def lu dul jub jubal jubbanti comme ni ko rek gouvernement bu yées bi daal di woote moom moomee nag daal nay daal di xam ne dafay daal di continuer waat di def li nga xamante ne si nag moo di tiktok ya nga xam ni daal na ko daal di def wante nekkul rek pour wut parce que nag ñu bëri buñ la gisee rek nga daal di siiw dañ lay daal di yaakaare ak xaalis te nag li nga xamante ne si moom la ñuy def ci tiktok bi amu xaalis ba tax ah, moom Samba Ka nga xam ne di gën a xool nekkinam ba nga xam ne nekkee woon na ko rek ci réseaux sociaux yi yamu di xam ne li nga xam ne nag moom la gën a ci àdduna mooy jigéen parce que nag ñu bëri ñu nekk ci prison bi jigéen ñoo leen fa daal di dugal ah, moom moomee di Samba di remercier bu baax di DJ Kheucha ndax nag am na taxawaay bi nga xamante ne si dana ko koy daal di jàppale bu baax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 tey lay tàmbali.